waaw Ousmane Tanor Dieng vraiment nekkoon na koo xamante ne yàgg nañ ko xam ci langue politique bi parce que depuis bi ñu nekkee xale ñu ngi ko doon gis ci biir parti socialiste mu nekkoon vraiment politicien boo xamante ne koo xamante ne exemplaire la daal parce que dafa nekkoon koo xamante ne dafa maandu ba pare nekkoon genre régulateur vraiment ci société sénégalaise bi vraiment perdre nañ koo xamante ne nit ku mag la vraiment ci wàllu politique gu Sénégal vraiment xam naa koo xamante ne dina marqué histoire du Sénégal trop. Ousmane ah xam naa si moom daal baax ak yaatu ak bëgg Sénégal ak bëgg a am ndax vraiment bu mu jàppee PS ba léegi bayewul métti woon na fi lool mu jàpp rek mbañ a di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba Macky ñoo vraiment ñu def ko addition boobu léegi nag. def naa li moo waxante ak Macky moom respecté na ko. tout d'abord dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di bokk ak ñëpp naqar bi ak tiis bi parce que Ousmane nekk na nit boo xamante ni bari na li mu def ci réew mi bari na te aussi li mu doon ci réew mi. moom ñun PS dañu mës a doon depuis 76 la ñu milité PS boobu Senghor moo fi nekk Abdou Diouf nekk premier ministre am ñuy dox ci loolu ba Senghor dem Abdou Diouf ñëw moom aussi bi mu ñëwee ñu ànd ak moom. bi ñu àndeek moom aussi ba benn moment bon xam nga rek ku ne sañ nga ni boo demee fii du ma la topp moo indi suñu rupture ak moom ñu sant yàlla tam ci loolu bu baax a baax a baax mais ñi ngeen bokk ak Sénégal yëpp naqar bi di wax grand homme nit bu baax nit bu sere mu génn àddina tey ñoo ngi ñaan suñu borom teeru ko teral ko fa mu jëm gënal fa mu jëm gënal ko fi mu jóge ñi bokk ak Sénégal yëpp nag naqar bi ñu ngi tiisoo ak ñëpp di bokk ak ñëpp naqar bi comme lu ñëpp di wax ci moom rek di seede ci moom lu rafet ndax dëgg-dëgg nekk na nit koo xamante ni ba ma ko commencé seetaan ba léegi ci langue politique bi mosuma dégg loo xamante ne wax na ko lu ñaaw ci adversaire politique am mosuma koo dégg wax dëgg yàlla ndax nit ki moom dama leen di seetaan ñoom ñëpp mais nit ki booy wax ci moom na wax ci moom loo xamante ni lu rafet la mosuma dégg ci moom kàddu bu ñaaw jëme ci mbokkum jullitam wala nit koo xamante ni homme politique la comme moom wax ju rafet rek laa dégg ci moom di ko ñaanal yàlla nag fi mu jëm dàqal ko fi mu jóge lool. borom yërëm ko xare ko àjjana yéegal ko ci àjjana yu gën a kawee jàpp teg njabootam suñu borom teg ci loxoom mais lu ñu mën a wax daal mooy senegal tey ñàkk nañu un grand ton vraiment métti na ma nag wax dëgg yàlla métti na ma ndaxte yàlla moom kenn xëccoog moom lu mu def rek xëy na moo gën si moom waaye nag vraiment de si moom ma ko yëgee dëgg dëgg métti na ma am naa mbetteel waaye nag yàlla moom lu mu def rek noonu la dañuy gëm rek defam te di yàlla yàlla yërëm ko. fu mu jëm yéen yéen ko gënal fu mu jógee. waaw waaw di ko jaale waa Sénégal di ko jaale le président Macky Sall ak euh, famille mag ñëpp di ko jaale ndax tey amaana ñun dañoo euh, juddu di dégg histoire PS di dégg histoire Tanor dégg tamit li nga xamante ne tamit ba ñu jugee ba ñu duggee ci politique tamit gis nañ li nga xam ne liggéey na ko fii ci senegal te boobu ba léegi tamit ancien yëpp. képp ku euh, dugg tey si réseaux sociaux yi lépp looy wax si Ousmane Tanor Dieng wax bu rafet ngay wax waxu kilifa ngay wax wax boo xamante ne ñëpp dañ ne kii nekkuloon euh, koo xam ne sax euh, nekk na un socialiste mais c'était un militant du Sénégal donc buñ ko demee ba koy seedeel loolu rek donc c'était un grand homme waaw kooku daal moom macha allah loolu lay wax si moom di ko ñaanal tamit fu mu jëm na ko gënal fu mu jógee borom yërëm ko xaare ko si àddina yu kawe yi. foofu rek wax ci day daal di am fu mu daanoo. côté politique bokk na ci ponkalam dëgg dëgg dëgg yoo xam ne tey xool boo làmb tey Ousmane Tanor am nga ci lu la metti mooy nag àddina moo demee noonu li yóbbu ñu baax ñi kenn ku ne ki la gën a tax nga bàyyi ko mu gi dañ ci yow keneen ku deñ dina metti waaye da nga koy sant yàlla. ñu ciy yàlla bu baax a baax. ci côté politique noo ko xamee. waaw yàgg naa koo seetaan yàgg naa koo seetaan parti socialiste yàgg naa ko même Khalifa Sall mi nga xamante ne gars yi nañ ko ñu bëri ñu ngi doon wax naan ci moom lay jóge mais wax dëgg yàlla ci wax ju may dégg ci moom mosuma dégg moo wax joo xamante ne wax ju ñaaw la ci xalifa sàll waaw ndax nit moom booy wax ndax ma ko yàgg seetaan nag seetaan naa ko mosuma ko gis face à face dama koy gis télé waaw loolu laal laa mën a am témoin boo xamante ne naa ko def ci moom. noo noo mën a tontu PS ñàkk nañu ku na ñàkk nañu ku mag ñàkk nañu un homme parce que soo gisee man un homme ndax nit ki mën nga ànd ak parti mu métti nga bàyyi waaye Ousmane Dieng c'est un homme d'état ndax mosuma dëgg mu wax lu ñaaw ci politique mosuma dëgg benn kàddu bu ñaaw mu génn ci làmmiñ ñaaw wax dëgg yàlla te it homme d'état soo ko déggee mu Ousmane Dieng ndax am na secret d'état ndax di nga ànd ak nit bu métti rek nga génn commencé taxaw fee di weer daal. di sànni xeer di wax li kii lii kii lii waaye soo dëgg si làmmiñam loo xam ne rek woo wax bu ñaaw daal dëgg yàlla mosuma ko dëgg tey vraiment mën na tey secret d'état comme soo dëggee soo dëggee ñu ne homme d'état Ousmane Dieng moo tax ñu koy wax. waaw loolu tamit ñëpp foog naa ne gis nañ ko ndax 12 ans d'opposition ku ko def tamit yombul xam nga euh, ànd tamit euh, ba fi président Abdoulaye Wade maa ngi déglu sànq benn benn témoignage bu Madické Niang doon def. en 94 xaw ma ban di wax si moom wax bu rafet si diggante moom moom ak président de la république moo lay woon nekkoon kon kii gor la te bu ko neexoon ba Abdou Diouf demee moom tamit mu dem ànd ak ñeneen mais donc dama ne tey PS bu ab bu existé ba léegi c' est grâce à moom grâce à Tanor moo tax ba léegi PS existé donc kooku daal dama jàpp ne moom bu jàppee du bàyyi. waaw jàmbaar bu fexee ndax bi Abdou Diouf daanoo dafa téye parti bi. te su ko neexoon aussi vraiment mu bañ a mu def leneen wala mu wuti mais moo jàpp ci parti bi te parti bi ba bi muy ñëw ci ànd ak 2012 mu ànd ak euh, Macky Sall ñu yéeg mu ngorom moo ko may li tax mu ànd ak Macky ndax ànd naa ak moom ba fal ko ni ko du ma la bàyyi fekk daanu loolu gor moo ko mën. mooy parti bu mu téye rek te koo bàyyi téye koo ànd sa fulla ak fayda waaw wax dëgg yàlla loolu moom makki dama trop si moom ndax man may xale ba léegi pees laa xamoon. ndax MJPS laa bokkoon nga xam ne kon loolu loolu tey waaw MJPS ñun ñu ma nekkoon jeune socialiste yi MJPS comme boobu ba léegi vraiment ñu ngi ànd ak moom ba après la ñoo bay parti bi ñun man bay woon naa parti vraiment demoon dem ànd ak euh, yi wax dëgg yàlla waaye nag Ousmane moom vraiment dama ko naw daal waaw ndax góor rek moo man tee bañ a bàyyi. Euh, waaw mooy constance am constance am moom a gën a marqué. ndax comme ñun en tant que APR gis nañ ne ba mu nekkee ci Benno ba léegi ànd ak Macky Sall ba léegi musul fe di coloré fu mu newoon la nekk ba léegi ba tey euh, dee jëlee ko fi donc ma loolu conscience boobu mu gën a marqué ci moom. dëgg gu mu doon waaw nekk na nit koo xam nit ku dëgg la nit ku am kàddu nit ku respecté boppam ku respecté Sénégal ku bëgg Sénégal aussi waaw loolu moom vraiment nekk na loo xam ne mu marqué ci moom